mbokk yi seetaan euh, émission tegtal ci biir tegtal TV àdduna wërngal këpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkk bu baax ngeen di ñaanal di am mbégte ak kontaan ci ànd benn ànd ak ñun ci seen émission tegtal di wax ne seen bët suñu mbégte jëm seen nopp suñu bànneexu làmmiñ seen taaxir lu war a suñu farlu tegtal du tàyyi mukk du bàyyi mukk ci seetal leen koo xam ne que njëriñ leen ci seentu di ñaan yàlla ñu bokk gis ko ci tegtal na indi na leen gan gu màgg gan goo xam ne que adduna bi yëpp dinañ ko soxla gan gu bees tàq goo xam ne que dajjeegun paquet bi gan goo xam ne que international la gan goo xam ne que bu dee xaalis macha allah mi ngi sant bu dee xam-xam mi ngi sant bu dee gëstu mi ngi sant bu dee dem fu ne mi ngi sant bu dee qualité ak quantité ak njëriñ lépp xam nañ ko ci moom gan gi moo di kan si soxo xaboot sawda ñenn ñi di ko wax isaaxa si soxo isaaxa si soxo xabatu sawda SHS moom laa dugg këram nii gis ngeen maa ngi dox nii ci couloir eh mbay ci sax la dayam si sax ñu ngi seer ma ngi dellu ziar ba lépp jàpp jàmm ma bëgg la am tegtal dëgg la tey am naa la alhamdulilah dëgg la kon askan wi jàpp leen moom dëgg la du ñeenti fan dëgg di te nga yor njëriñ alhamdulilah sant yàlla ma ci sonn ñeneen di sonn pour ma invité leen yow ngay sonn pour ma man may sonn pour invité la. kon xam nga ne am naa njëriñ bu ma xam ci yow. alhamdulilah rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Mhm. maa ngi nuyu adduna bi yëpp. Mhm. mbokk yi nga xam ne dégg na wolof. Mhm. ndax wolof moom ñu bëri ko dégg saraxule na ko. bambara bi dégg a wolof. alhamdulilah sant yàlla bu baax. li ngay wax nag nekkul loo xamante ne bii. lu lu amul la. di lu am la ñeenti at a ngi nii. ki ma booloon ak yow. yaakaar naa mu ngi déglu émission bi tey. Mm-hmm. ñeenti at ak fay la benn caméraman u RTS. Mm-hmm. li tax ma bañ a feeñ nag. yoo mm-hmm. xam nga ko. dama bañoon feeñ. mu ne ko jaru ko. ndax gars bu ma feeñee mun na am duñ mun a comprendre. waaye gis nañ ni léegi foog ñu feeñ. ndax daf ko laaj. ndax nit ki boo amee lu baax ñu bëri bu côté yemoo si leen sa mbokk saraxu la ma ne ngërëm di leen sant baax a baax ndax ba gisee nangu ma génn feneen ñoom ñoo ma wuyu si bi nga xamante ne bi dañu ëppoon sama loxo di ma ne wax dëgg su ma si bëgg a yokk leneen. dafay mm. jafe ak man. Mm. kon beneen waar bi mooy waar wolof bi. Mm. bàyyi ma bàyyi leen ko kenn kenn di ñëw. moo gën may dem di wootewaat ñooñu. ñu ëpp suma loxo. te ba pare ñu gars yi ñu mën a ràññee. lan mooy médecine prophétique. ak lan moo ñu utile ak yeneen faj yi. mu ñu yaakaar dañoo toog su ruq bi rek. yor di kayit di jaxaase di jox nit ñi. am ñu yor lu raw loolu. si organisation. si defaraat garab si bureau yi. si wàll international. loo xam ne ko jàng bitim réew. andi leen ko. loolu bu ñu ko bëggoon wan. ma ne foog ma gis ma temps wan leen ko loolu moo tax ma bëgg def différence ba diggante ak ñeneen ñi. si soxla pour wan euh, da ngaa bëgg faj di faj. dëgg da ngaa gis ñëpp di faj nga ne xaaral nga dugg ci. wala da ngay wut xaalis wala da ngaa am fit wala loo loo dond la loo jàng la lu la yàlla may la wala fit la ba nga taxaw di faj foo toj jaar nga faas turé may ci tënk fi nga toj moom mun xaju fi mais foo toj ba sañ a taxaw di wax. alhamdulilah rabbil alamin man tojuma fenn. Mhm. <laughs> man dongo daara laa. Mhm. doomi Soni ki doomi Saraxuli laa. Mhm. ñëpp xam ne ñun ay commerçant lañ. ñun amuñu dara lu dul suñu liggéey. ak li ñu xam jàng alquran li ñu xam moom la xam. di bëri foo jàngee. Fass Touré foofu laa mokkal alquran. maa ngi nii sama sëñ Abdou Aziz Touré. sama papa sama xarit. maa ngi koy nii bu baax a baax. ak waa Fass Touré Mm. ak képp ku jaar Fass Touré. sama mm. mbokk daara ñëpp laay nuyu. macha allah kon boobu su weesoo léegi nag su weesoo gis nga kii ni invité tey euh, li na li duuf ci nag bi xajul ci cin li tey du ma toog damay ànd ak moom wër mu wan mooy kan ba xam mooy kan ba pare euh, dugg ci bagage yi. ak euh, wan ba nga xam ne kii ñu indi du n'importe qui beneen yoon nag bu ma ñëwee ñu toog yaatal tey moo tax dama doon laaj mooy kan rek bu baax a baax si soxla bor sawda kon si soxla lan àndal ci uh-huh. sox xabar soo daal tey émission dox la ak wax. dëgg la wër dëgg la waaw. kii fii kii mooy Cheikh Tall. kii mooy Cheikh Tall. kii mooy ventouse. ventouse yaa def ventouse yaa. mu ma def ventouse. waaw sa bu muy métti. Mhm. massage. waaw ventouse. Mhm. am nañ yooyu yëpp. yëpp daal yëpp am na. massage moom daal. Mhm. alhamdulilah alhamdulilah kii yàgg nañ liggéey def nañ fukki ak ak ñaar. fukki at ak ñaar depuis Gambie. moom am na lu bëri moom lañ jiite moo jiite wala xijaama bi mm. maanaam wàllu moo ko jiitee mm. day ñëw fii pour xool li fan la tool lan mm. la war a gën a si gars yi alhamdulilah man te bu ma génnee bu ma leen bitim moo ñëwee ñoom wan leen dañ war a yokk li ak li ak li ak li léegi ñun méthode bu ñu amee mooy hmm. méthode bi am Arabie Saoudi bi hmm. am Dubaï bi am Qatar bi am arab yi hmm. méthode boobu la ñuy liggéey ñun macha allah moo tax kenn du am looy jaaxle si wàllu ventouse bi lépp loo xamante ne bi risque la amu si amu ci ventouse nan ngeen am séparation jigéen ak góor yi kii moo leen yore waaye ku ñëw wala ngay dem di jaar si kii mu xool la mu yebale si jigéen bi góor la moom mu dem ak xale mi ak booyam yi liggéey mu wan leen def leen nang def leen nangam. kon liggéey bi soo gis si soxoo ak ah, ak ko gis yëpp. benn la mun nga ñëw nga fekk dem na Amérique. mun nga ñëw nga fekk dem na France. waaw fekk Gan Mauritanie dem na Gambie. Hmm. waaye liggéey bi moom toujours mu ngi continuer mu ngi continuer Cheikh Tall mu ngi ko laaj. moom xam-xamu màcc na si wàll côté boobu trop. Hmm. Cheikh Tall euh, yow sa liggéey euh, fii Ventouse euh, yan jafe-jafe nga ci am surtout boo dajeeg mag nan ngay doxal doxalee waaw mu ngi sant yàlla di julli Seydou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme na ko waxee rek euh, liggéeyam la boo xam ne euh, jafe na jafewul euh, te ñu ci sant yàlla bu baax ngir am nañ si ay résultats yoo xam ne yu bëri bëri la kon wàllu mag yi moom ñun am nañ ay xam-xam yi nga xamante ne ay pexe yi xamante ne nañ si mën a mag bu ñëwee nañ koy jàppale dañ ko def ventouse ngir lu gën a bëri première fois bi borom day ragal day tiit mm. waaye après bu ñu paree ak moom rek day yàkkamti pour ñëwaat pour war a continuer ventouse am ventouse bi booy kii day xaw a metti ba nit ki ragal wala nu mu demee noonu. waaw duy métti nag lu ko lu gën a dawloo tey nit yi. mooy bu fa ñeneen ni dugale seen loxo. ku nekk a jóg ventouse ventouse loolu xal naa sonal faj bi bu baax. Hmm. waaye boo demee normalement ventouse euh, méttiwul. Hmm. ngir euh, nañ génnee deret waaye bu ñu ki génnee déggee génnee deret daf koy jàppee lu mag. Hmm. yonent bi salaam nee na mu ne ventouse mooy li nga xamante ne nit nañ ñëw ñu génnee deret si yaramam mu jëm. dox soxlam dem yoonam te dara du ko déranger kon danga bi mooy ku ko def ñun ni ñu koy defee booy ay deux jours boo doo gis loo xamante ne foofu lañ ko defaloon ventouse bi ngir loolu moom méttiwul dara hmm. mooy nag méttiwul bu waram ñëwee fii ba mu essayé moom loolu moom dina gën a leer insha allah hmm. ki xamul luy ventouse lan nga koy wax ne ko mooy ventouse waa ventouse boo dellootee suñu aada ñu ngi koy wax nampatal mooy mooy mag yu mag yi loolu lañ fi bàyyoon ngir ventouse lu yàgg la hmm. njëkk yonte bi ñëw fi ngir yonte bi mooy dem Euh, fu mu jaara dañ koy wax boo demee nga diggal sa xeet bi ñuy fajoo lii di alxijaam mooy ventouse bu mu ñëwee nag mu jàngal ko xeetam hmm. amoon na mag yi daan nañ ko dañ daan nañ ko defee béjjin hmm. ñuy teg béjjin mooy nambatal hmm. waaye tey nag comme ni ko sëñ bi waxee dañ ko gën a développé mu gën a ngir feebar yi bëri nañ tey ñoom ay jumtuwaay ay machines yi nga xamante ne yooyu la defee ventouse tamit na mucc ay du feebar du bëri feebar tam duñ ah, feebar yi duñ wàllaate daal loolu mooy ventouse mooy nampatal te itam mooy ventouse euh, na french ñu ngi koy wax ventouse angale ñu ngi koy wax copine euh, arab ñu ngi koy wax alhijama suñu làkk yi ñu ngi koy wax nampatal insha allah waaw masha allah kon daal kër si soxo xabat sow daal jàmm ak salaam rek a fi nekk loolu rek moo fi nekk moom ku ñëw dina kontaan insha allah set ak organisation yëpp yëpp macha allah yëpp a ngi fi daal. ak faju bu dagan. comme noonu la ko gisee daal incha allah. kontaan na seet jërëjëf jërëjëf. jërëjëf euh, jërëjëf si saxoo xamal soo daal gis nga. waaw kii li mu wax Cheikh Tall. dëgg la fii war na ne daal fii lu sell daal moo fi nekk faj bu dagan. alhamdulilah euh, kii sa ginnaaw kan la kii. kii man la. ponkal la kii nga àndal quoi. kii turkin. turki waaw damay liggéey ak moom. da nga fay liggéey. damay liggéey moom ponkal la fa dewla. macha allah kii macha allah di defar ay garab di defar lu bëri. xam hmm. xam-xam bi moom. Hmm. xam-xam moom wa a kulli zi ilmin alim hmm. boobu xam-xam bu am na ku la féete kaw hmm. ci itam am na foo xam ne foofu la ma féeteel ah. man tamit dem di jàng si moom di yokk la am ñoo xamante ne bi dem koy am si moom sa hmm. di yokk rek kii nag ki ma ma ki ma la jàngal waaw docteur Ihab docteur Ihab Ihab fu mu dëkk Dubaay Dubaay kon yaa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko sant di ko gërëm waaw ah, jërëjëf si Safaa Habbatu Sauda wax dëgg yàlla fii organisation bi leer na rafet na nice na ñu dugg fa ne. consultation la consultation la consultation la. consultation la da war a dem ventouse wala da def. Mhm. da war a jënd garab. Mhm. da war a seet si soxo. da war a xaar bi si soxo ñëw. Mhm. wala yow waru xaar si soxo. ndax si soxo bu nekk ak ñàkk fi nekkee liggéey bi day continuer. fii moom dañ lay xamal li nga war a def. après bu dee pharmacie ñu wala dama la si pharmacie. foo war a dugg rek ñu wan la ko. mais ku ñëwee ci xamul nu muy def kooku moom nooy di dund ak moom day taxaw xaar rang gi wala day naan. comme urgence la xaaral dañ koy jël gaaw gaaw dañ koy jël gaaw gaaw. jàppale ko mu dem jàppale ko si sax fan la war a duggaat comme sa kër gi moom tam ñu réer ci biir. waaw kër gi macha allah dafa set. waaw macha allah rafet nice ñu jaar ni naa su la neexee. waaw ñu dem si pharmacie bi. ñu dem ci pharmacie ba ca. ma wan lan. balaa ñu dem ci pharmacie bi fii mënoon fi jaar. waaw mu rek ñu fi jaar. salaamaaleykum kii mooy Baye. Baye suñu Baye Fall baa ngi nii. Baye Fall. Baye na nga def. sant nañu baax de. Baye Fall wala Baye Taliba Taliba Baye Niass. parce que sama maam lañ ma tuddee. la la tuddee sama maam lañ ma tuddee ah, waaw ki jur sama yaay. ñu côté nga féete ah, man de man maa yor lépp li nga xam ne mooy euh, euh, étiquette yi. étiquette yi ah, bi. ak emballage dañuy jéem rek. soxal dafa organisé wu. <laughs> dañuy dañuy dañuy rek. Mm-hmm. Mm-hmm. étiquette yi nga xam ne que notice yi comme notice lépp lañ ci bind explication yi hmm. nga xam ne moom la ñuy utiliser nan la ñuy utiliser garab yi hmm. xam nga defar daal ba lépp rafet ba lépp rafet voilà parce que maanaam sunu sunu sunu jëwriñ sunu patron hmm. moom ci lu baax ak lu lu rafet rek lay dox nan ngay dundee si soxo doon seen patron pare doon seen morom oyof ba pare doo xam ne sax kii mooy patron bi daal oeuf ko. ah loolu dama yaakaar ne li mu nekk ndongo daara la. Mm-hmm. parce que moom ci la ci la ci la yaru. Mm-hmm. lool looloo tax ba nga xam ne euh, mu mun a def ak lépp quoi. Mm-hmm. voilà man kon baa ñu ngi lay dolli siyaar. ñu bu baax ñu ngi siyaar bu baax. kon ñu daal fa ne balaa ñu réer ci kër bàyyi bàyyi liggéey mu ngi nii. liggéey bàyyi ngi nii gis nga. liggéey ma liggéey bàyyi. bàyyi ma liggéey yëpp yëpp moom la. gis ngeen. mooy liggéey carton yi. mooy liggéey yi bàyyi liggéey bu set la ah. mooy liggéey yi. waaw mu liggéey savon carton savon yi. mooy liggéey yi. kii bi mu doon wax ak ngi lépp lu fi doon catalogue. carton bi bi mooy suñu pompe ba pompe baa ngi nii. pompe bi àdduna bi yëpp leen ko wuti de. pompe bi yéen ñi am faru rab coro rab tëdd di gént di jaaxle di jommi yëpp pompe bii au lieu que ngay dem di sanga tubay bëgg dee moom nee na pompe bi ngay jël mu mel ne parfum di xeeñ lu neex di la indi résultat bu baax rab yi sori la. nga commencé di nelaw bu baax baax bu doon rab da lay yàqal liggéey mu deñ rab di la yàqal am doom mu deñ rab di la yàqal nga a sëy mu deñ yooyu yëpp rab fatt nanu ma fatt nan ko daal mais bii moom waaw baax na si soxo fonk na ko trop nañ dem si pharmacie bi rek ñu dem si pharmacie bi <laughs> waaw ñu dugg ci biir euh, kon ngeen topp Tektal TV ñu dalal si sax Amadou Sawra maa yow ku dàqale. <laughs> yéen a àtte ku dàqale yaa ma dàqale. <laughs> d' accord kon. yaa ma dàqale. Euh, kon dugg nañ ci pharmacie bi. Bachir Kam hee Bachir Kam Kam. si Kam si ñëw nañ ci biir pharmacie si sox Abar Sawda si soxo nag ku ko ràññee ràññee nga ko ci foire internationale de Dakar ak fu man di doon ci àddina bi am na ay fu ci 15 pays am na fa fu man di doon lim yor ay at a ni ñuy wax pour feeñ tey nag njëriñ lañ leen indil njëriñ loo xam boo gisul si soxo sax boo ñëwee fekk ko fi waaw alhamdulilah kii Bachir Bachir kii Bachir la Bachir des Bassirou Touré day consulté mhm. dina si pharmacie bi tamit mhm. ndax fii moom ñooñu am place góor ñi am jigéen ñi mhm. boo ñëwee si wàllu jigéen ñi am na nañu fi nekk te dafa am ñoo xamante ne bi ñoom ñoo yor wàllu jigéen spécial ñu ngi foofu ventous ak yooyu Fatima si la bokk Fatima Fatima mu ñëw ci moom si la bokk Bachir si la bokk macha allah Bachir bismillah bismillah lan ngay wax ci soxo ak place bi pharmacie bi euh, pharmacie bi moom comme niñ ko faral di waxee toujours rek fii lépp a ngi fii nii Euh, ñuy defar garab yoo xamante ne baax na trop. lépp daal bio la naturel la. amul benn effet secondaire. comme ni nga ko waxee nag ñun fii comme jàppalante bi ni muy demee. man maa nekk fële di consulter. mais parfois ba tey dinaa nekk fii di jàppalante ak ñoom tamit fii ci pharmacie bi. waaw man daal moom mooy moom mooy bi daal kon nit ki bu xamee li ko dal bu ko defee mu ñëw mën naa ñëw ne lii laa bëgg rek ngeen jox ko ko mu dem. comme tey jii nii ku mës a jaar fii. Hmm. xam suñu produit bi parce que mën nañ ñëw comme karité bi nii pompe hmm. bi ni ngi ñëw ñëw rek jaay ma pompe wala lii ñi nga xam ne hmm. luy neexal xel xam nañ ko ah, kiis bu neex voilà dañuy ñëw di ko jënd mais koo xamante ne nag ñëw na muy jàmbat dara si yaramam hmm. kooku dañ koy faral di yóbbu si biir maanaam xool ko waxtaan ak moom eh, xam luy problème am bi ñu bindal ko ordonnance bu ñëw fii ci pharmacie bi jënd garab bi yéen ñaari ñaari ñaari garab yoo xam ne moom booy nelaw sax da koy gént sax ñu naan la jaay ma ko bari na mu <laughs> parce que tey jii am na ñuy jàmm tig foo gis moom. Ah. sama yaram bi day diis. sama ñuy jàpp sama tànk yi di métti. Hmm. Hmm. sama yaram bi yëpp mënumaa nelaw guddi. Hmm. bii karité bi boo ko jëlee. karité bi waaw. fronté la karité la. mu ànd ak nag eh, sax lañ ko maanaam loo xamante ne muy def si wér gu yaram. wér la wax nu mu toll bii moom ñëpp a ko xam. ñëpp ak ban. teg si ne muy pompe bi ak savon hmm? miracle baa ngi nii. ak ah, bi ngay gis. savon miracle uh, hmm? hmm. savon miracle bi ak uh, kii nii pompe miracle bi. savon miracle bi moom tamit. mooy lépp li jëm ci affaire yu seytaan. seytaan muy bët. waaw làmmeñ cat xam loolu baax na si. parce que zam-zam la. ak loo xamante ne dañ kaa mocc. baax yaram trop. boo dul nelaw am bopp buy métti yaram buy jàpp di diis lépp daal loo xamante ne si yaram loo xam ne luy dàq seytaan sa yaram baax na si torop bii moom mooy ñaari garab yi nga wax képp ku ñëw fii nii tey ji da koy laaj bi da ngay tëdd di ko gënt sax da ngay tëdd sax di ko gënt te bëri na fii du ñaari kese sax mais comme man maa la laaj ñaari yi voilà comme moo wax la ni karité bi ak pompe bi ñëpp xam nañ ko adduna bi ñëpp xam nañ ko incha ah, allah masha allah si soxo xabar soda li tax ma jël li def tegtal boutique du hasard ndax njëriñ lekk pomp bi àdduna bi yëpp dañ koy laajte kon ngeen baax saabu bi nag moom pour leer la pour rafet la pour dindi cat pour dindi saytaane wala pour xeesal nit wala pour lan la lu ko tax a moom li ko tax a jóg mooy. moom tamit li affaire comme genre pompe bi. benn la presque. wute bi rek mooy bii nii da nga koy sangoo. boo koy sangoo tey jii day dindi lu bëri mooy li ngelaw seytaan. Hmm. wala lépp loo xam ne duy jëm ci affaire seytaan quoi. day raxas sa yaram ba mu set mais comme luy rafetal yaram am na yeneen savon tamit. Hmm. am na yeneen savon. client bi sax moom la jëm ci sutura noonu parce que xam na ko xam nan ko voilà mais nag luy defar yaram tam am na am na savon yoo xamante ne savon olive la moom tamit baax na trop si yaram day ah. defar yaram bi mm. boo doon am ay taches yooyu baax na si même savon noir bii nii di savon xabar sawda moom tamit sooy sa yaram buy xasan wala muy am tache ni picc si yaram mm. baax na si torop ah, moo tax léegi am nañ savon voilà am na savon yi defar yaram mm. am na savon tamit buy faj incha allah kon daal bientôt bu ma gisee man leer nañ rek si sox xabar sawda ko waral <laughs> ah kontaan nañ bu baax a baax ban bis ngeen dul tujji fii daal jour yi yëpp dañuy tujji place bi incha allah saa yoo ñëwee ñu mm. ngi fii ni même dimanche pharmacie bi maa ngi fii ni ñàkk nekk Sénégal mu nekk fekk yëpp boo ñëwee di am li bëgg. voilà léegi loolu nag am na solo trop. Mm. parce que dañuy faral di gis si Sokone si tele bi. Mm. muy génne di waxtaan ak askan wi mais nañ xam ne tamit. am na éléments yi nekk fii nii yoo xamante ne aussi même bu fi nekkul. boo ñëwee sa aaju moom dañ koy faj. ni ñu ko bëggee incha allah. incha jërëjëf euh, kontaan nañ bu baax a baax kooku moo di euh, Troubetti kii. man may Bachir. Bachir Touré kon euh, ñu xool yu rafet a ngi ni ah jënd en direct fii amul waxaale de ah? amul waxaale woon bind mu leer la prix bi. waaw prix bi moom prix fixe la. mais instant bi nam ñu ngi si promo bu rek. promo bu rek lépp promo la. garab boo bëgg rek incha allah am na pourcentage buñ ci génnee. ak en tout cas daal noonu lay demee. jërë ngeen jëf mbokk yi ba léegi ñu ngi ci euh, pharmacie Sissoko Habbatu Sauda Isaaxa soxo mais boo duggee ci internet bi def SHS rek di xam kan mooy si Sissoko Habbatu Sauda nga xam nag euh, yëngal na réew mi. ñu ngi ci biir pharmacie bi soxna si yow tur bi lan la. asalaamaaleykum euh, Fatima Doucouré laa tudd. Fatima Doucouré. ngi de maa ngi fàtte nuyoo so ba nga kii. yaa baa di xool tànk mais <laughs> normal yaa ngi si xabat sawda c'est normal ah, sawda moom boo fi ñëwee ah, waaye ban xabat sawda ndax xabat sawda original bi la nekk am na kuy toppandoo xam nga ko toppandoo ku gëmul bopp ma koy def roy ku bëgg lu baax a koy def te roy ku la nangul moo koy def kon lu nuroog si soxo xabat sawda bokkut ak si soxo xabat sawda mbir mi fii la kuy seet lu baax fii la ndax lan la bin dalee waaj a def émission ay at la te ba léegi mi ngi soog a sotti si soxo international la fu waay làmb ci àddina bi daj ko ci lu baax maanaam li nit di wuti ba jaral ko parfois muy dugg ci tappale moom bu dëgg bi la yor moo tax yàlla nga ko ci suturaal bu baax a baax xam ngeen ne Tektal boutique du lu ne fooy dugg de kon lu dem ba ne topp nañ ci at pour dugal ko fa njëriñ kese lañ ci séntu si soxo xabar soda Fatima Doucouré fii yow lan nga fi jànkantool ak ak clients yi. Euh, donc déjà man ci pharmacie bi laa nekk. Mhm. donc euh, déjà chaque euh, chaque jour dañuy gis ay façon client bu nekk ñoo xam ne dañu jàmmante ak lu bëri. Mhm. loo ñoo xam ne sax amuñu dara mais c'est juste que dañoo bëgg a protéger seen bopp aar seen bopp. parce que xam nga léegi surtout si jamono fi ñu toll nii ak euh, feebar yi et mm. en même temps aussi côté seytaan sixar bi et tout dafa bëri te sonal nañu bëri tamit. Mm. donc am na si ñoo xam ne dañu ñoo protéger seen bopp aar seen bopp aar mm. seen famille. et en même temps aussi di fajaale aussi donc euh, c'est ça. kon daal fii euh, yow laajoon naa kii sànq war na ma yi fi gën a dox yow yow comme jigéen nga jigéen dina am yeneen secret fii dégg na am na bagage su secret jigéen xaw ma moom secret la joxe secret bi waaw waaw foofu dégg naa mi ngi yëngal fii de. Mhm. ni nga waxee secret. donc mm. secret la c'est mm. secret mais voilà dinaa leen si. yel tuuti quoi. waaw. Euh, donc là wow. déjà bi suñu produit bu bees la Zeynab Mustahar la tudd mhm. donc déjà suñu logo bi mu ngi si mhm. suñu tur mu ngi si donc su fekkente gisoo lii yëpp moom parce que Zeynab Must macha allah bëri na mhm. mais qualité yi bokkul déjà li muy faj tamit bokkul aussi donc logo bi tur bi su fekkente nekku si moom si moom moomu ko voilà donc déjà dafa am odeur boo xam ne si autre chose mhm. naa la kii tuuti comme ça nga xool nga xam comme ça si le faut suba nga ñëw jëndul soxna si sax nga ñëw jëndul <laughs> voilà xëñ co ñax na de waaw lii moom mos dolli la tudd mos dolli waaw mais à part neexaay bi njariñ bi lan la njëriñ déjà bii euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa encouragé jigéen ñu bëri suñu paree di gis euh, seen deret chaque mois hmm. ñu utiliser ko hmm. parce que déjà daf lay protéger dindi ay infection même hmm. donc c'est ça loolu mooy njëriñ bi loolu mooy essentiel bi aussi te du am benn effet secondaire non déjà produit yi yëpp ñoo lay jox garantie. Hmm. du la jox benn effet secondaire. Hmm. Euh, doo feebar après saa ay kii yu sew sama non pas du tout. te ba hmm. pare aussi ñun ñoo lay jox garanti que produit bi loo mënti am. day dénk carrément. léegi ban coono ngay jànkonteel comme Fatima maanaam jigéen buy nekkee ci pharmacie yu mel nii dafa laaj neex neex deret yaatu ubbeeku yooyu yëpp te dafa am góor ñoo xam ne que boo xawee neex deret tuuti ñu commencé ëppal jéggi frontières yi yooyu nan nga koy lijjantee. bon avec sa bon comme ni nga ko waxee c'est tout à fait normal mais ak loolu yëpp déjà ñun première kii bi mooy liggéey moo ñu fi indi te en même temps aussi client bi toujours mooy roi. donc ak loolu yëpp tu gères tu fais comme tu dois faire mais cela veut pas dire que euh, da ngay wax ak client bi façon boo xam ne neexu ko et tout loolu moom on le fait pas du tout. Mmh. donc on gère. Mm-hmm. non fi may waxee ay code la ah. you can present ko ci euh, anglais. ak tamit saraxule ñaar yëpp. Euh, saraxule bi moom. macha allah saraxule la am ne euh, voilà saraxule lan ngeen di wax saraxule gàlle ah. saraxule bu gàlle nga ko. <laughs> voilà ñëwoon ci anglais. ok nga xam ne euh, que ñoom benn sama yëpp dina xam li ngay wax. Okay, uh, so we here, as usual, at Siso Habit Soda, mm-hmm. uh, a widespread range of products. We have over 56 products. We have the karité, mm. which is here, shea butter, we have the spray and everything basically yes. is for your health and mm. your well-being as well mm. so that's hisra so that's priority and that's mm. our goal as well uh -huh. yes di laa ñëw nga jàngal ma anglais ah si soxla tamit <laughs> ñamal ci anglais bi No, it's not. Fares na expliqué na rek it's okay. Fatima expliqué na it's okay. It's okay. waaw jeex na kon. yes parce que anglais moom il faut ma jàng ko. parce que la ma daj Düsseldorf xam ma. maa ngi yàlla rek ko xam bis boobu dafa mel ni yàlla dafa maa sol ma lijjanti ko génn. it's okay now. yep, everything, I explain to him everything. mais kon daal te yéen fii seen fii moom. we have we have the miracle spray you can we have the miracle spray. we have the blacks with honey. we have the blacks with oil. we have the honey. we have the toothpaste. we have many many many. then you have to. we have to say in Wolof and explain to them in Wolof okay. mm -hmm. and also in English. Okay. like you show them like this. show them like this like this like this. léegi fii dina am produit yoo xam date bi dañ naan jeex na ak yooyu daay wala. c'est-à-dire. comme seen produit yoo xam dañ naan bii deux mille vingt deux mille vingt et un wala onze septembre deux mille vingt et un lay jeex. waaw oui. yëpp yëpp produit yëpp. Mm-hmm. am na date de périmation. Mm-hmm. produit yëpp. Euh, voilà par exemple bi. Mm -hmm. expiry date c'est deux mille. vingt cinq voilà. Okay. donc produit yëpp am na ko. Mhm. loolu moom mënul ñàkk. kon daal war ne daal yéen organiser wu ngeen. ci côté bépp ah te set ngeen. di dox ci lu set. di dox ci lu dagan. <laughs> <laughs> kontaan na bu baax a baax Fatima Doucouré donc euh, voilà mm -hmm. donc aussi euh, pharmacie bi ni ma la ko expliqué woon si anglais plutôt on a plus que 56 produits yoo xam ne lépp pour wérgu yaram la macha allah te ba pare bi ñu commencé ak léegi yàggut noonu parce que dix ans moom pour ñun mhm. c'est comme 10 jours te si euh, si 10 ans bi macha allah on a plus que 56 produits donc vraiment mhm. c'est quelque chose quand même mhm. te en même temps am na yu bëri yoo xam ne si 2021 bi incha allah mu ñëw ça arrive ça kon daal ngeen bàyyi xel si sox Habbatu Sauda mi ngi ci Mali ak Mauritanie ak Gambie lu mat 15 pays France ak fu mu mën di doon euh, boo jotee ci numéro yi WhatsApp foo ci nekk dinañ la wax numéro ba nga soxla fa fa gën a jege nga am ko euh, si Soxla Habbatu Sauda wala Fatima laa koy laa dégg naa seen mbir yi léeg-léeg day dañ naan jeex na jeex na nit ñi di ko jënd ba naan conteneur baa ngi ñëw ñëwagut ak yooyu loolu nu ngeen di dundee ak moom te Tektal ngeen nekk. bon métti na moom métti na parce que voilà surtout léegi ak promo bi. bon am nañ ay produits yu bëri yoo xam ne dafa commencé di jeex am na si yoo xam ne dafa épicé carrément te mm-hmm. xam nga loolu nekkul si ñun mm-hmm. donc parce que on fait le mieux pour que xam nga ñëpp mën nañ si jot si kii si produit mais su xase ba jeex moom mm-hmm. jeex na mais ñu ngi ñëw 2021 moom incha allah lépp dina fi nekk ay yu bees tàq te voilà super. macha <laughs> léegi tamit parité dafa baax sànq dama wax euh, lu jëm ci jigéen ñi comme euh, il faut ma wax lu jëm ci góor ñi. am na góor ñoo xam nag euh, maanaam par exemple dañuy combat. Mhm. combat Balla Gaye te combat Balla Gaye gën a lu leen buñ soñoon combat la de Guiers la ñuy bëri combat bu yàgg. Mhm. xeet yooyu tamit euh, dinañ ko bëgg lu baax ci góor quoi loolu yu baax am na fi wala yu gën a fi nekk. yu gën baax sax am na fi donc voilà euh, main secret bi mu ngi fi donc loolu dinaa bàyyi si soxo mu expliqué. si soxo bii nu mu demee wax parce que comme <laughs> jigéen la. alhamdulilah rabbil alamin jigéen la waaye. Mm. day faj. waaw docteur bu jigéen voilà day am docteur bu jigéen day am docteur bu góor day am loolu moom amul góor ak jigéen mhm. alhamdulilah rabbi alamin mhm. comme ni ko Fatima waxee man damay dëkk produit cinquante six produit muy am fii mhm. man di defar na quatre vingt cinq produits xam-xam produit Fatima wax moom la tiim fii moom la tiim fii lépp suma la lépp suma logo la maa ko defaral sama bopp ndax dama koo am si xam-xam réew ma Mm. li ku dara amul benn problème foofu mm. dañ ko fay jaay dañ ko utiliser fu nekk mm. fii ñoo ko xamul bu baax mm-hmm. mais comme ñëw nañ obligatoirement pour ñu leeral nit ñi ndànk bi ñu xam ko mm-hmm. ndax bu ne garab traditionnel mm-hmm. garab faj nit ku ñuul gars yi fu ñu koy nattee ñun weesu nañ foofu weesu nga foofu ku xool li bu ne mën naa ko defaat doo ko gëm doo ko gëm déet yow ku gis fi nga jànge kàngam yi nga bokkal te jóge Fass sure mm-hmm. jàngi alxuraan ba ne nii ba pare di faju faju bu dagan moo tax ma bëgg kuy faju ak lu mu mën di doon sa ngëm yàlla bu ci dara wàññeeku kuy ñaanlu sa ngëm yàlla bu ci dara wàññeeku maa ngi leen ko wax naan leen moytu leen sëriñ si nga xam ne que ñu ngi toog ci ruq di la indili problème naan la lii faaw nga boole koog lii ifu saay-saay yooyu nan ko moytu faju sa diine bu mu ci wàññeeku sa ngëm-ngëm bu mu ci wàññeeku gëm-gëm ngay àndal nag da ngay gëm yàlla avant tout te xam ne feebar ak dee jotewul dara feebar ak euh, maam bul def lu la dalit nga jàpp ne nit la ko teg gëmal yàlla rek bu gëmee yàlla rek lu la dal dina teggee ko insha bu baax a baax kon si sa xabar sara kontaan nañ ci formation fii sa mun na explication bu gàtt rek waaw mun nañ jël bi mooy alpinia pour neexal xel pour mhm. mag la pour mag la pour xale pour xale nooy fàtte fàtte boo naan lii ñaar mhm. bu tee rek sa xel di del siwaat nit ko muy naan suba ngoon wala tee naan ba mu jeex rek suba ngoon di raxas sa biir di nga ne la bu baax mhm. am nañ bii bu mag kun tere lu saf suukar nag nu muy demee noonu kun tere suukar kun tere suukar suukar bi du yàq dara ah, ndax suukar normal la maanaam suukar bi ak suukar bi nekk si bu ñuy glucose ak yooyu bokkul ak bi bokkul ak bi asal shifa lañ koy wax yàlla moo wax ni dafay faj dafay ndax li fu mu jógee. Hmm. si yàmba la jógee yàmba lu mu am. bi habat sawda la. habat sawda ak lem la. ak lem bi huile habat sawda la boo xam ne maa koy pressé sama bopp. Hmm. bi miel mat la pour sëqat. pour sëqat bi pour ñi nga xam ne seen ndox dafa am problème mënuñu am doom. Hmm. boo demee. Ah. savon baa ngi ne habat sawda suñu ah. bos la spécial si soxo. savon miracle mu ngi nii. savon olive mu ngi nii. karité baa ngi nii bi yëngal jamono. bi yëngal jamono. bi moom karité bi moom. waaw ñun sax mënuñu serve nit ñi. boo leen bëggee waa Tektal. bala ngeen dem naa may ku nekk benn benn benn. dinañ ñu may benn benn. bu leen demee. Mhm. soxna si tàngal ndox. def ko si serviette. waaw bës sa yaram yi. bu passé. waaw ngeen diw ko. Mhm. di nga yëg loo xam ne mosoo ko sa biir adduna. kon boo paree booy daw sax yaa gën a gaaw. Sadio Mané ma ne la bii. ragal ragalu ma ko wan kenn. Mhm. su ma ragal man mun naa jël kenn ko xam ne ku am darga bi fa darga yéen. ma yëg karité ma ne ko am karité bi. am sama benn garab jël ko nga utiliser ko bu la njëriñ. jàpp nga tëj ma si kaso bi. kon kay dañuy wax Sadio Mané waa Liverpool ñu bàyyi seen ñooñu di leen marché ñu utiliser bii. waaw consommer local waaw. nii waaw képp ko utiliser. Hmm. dootoo jëndati beneen diw si àdduna bi. Hmm. bu bii. xam la ma def ma leer xamante ma leer ma. Hmm. ndax lii xam-xam la boo xam ne Afrique fi lañ ko jëlee. li nga Arabie Saoudi. c' est Arabie la ko wax. waaw li may wax yëpp dëgg la. laa ko jëlee. am na boo ko seetee. Afrique fii am na fi Mali. loo xam ne Mali la jógee. Mm. mu ngi fi Afrique fii. Mm. loo xam ne Sénégal fi la jógee. Mm. mu ngi si biir loo xam ne Inde la jógee. mu ngi si biir loo xam ne Arabie Saoudite la jógee. mu ngi si biir loo xam ne Chine la jógee mu ngi si biir. mu ngi si biir ndax lépp lu soo ma laajee mën na la ko. pièce par pièce waaye secret la du ma ko wax. waaw déedéet ku xam-xam nag dañ koy wuti moom. loolu am na xam ne si alxuraan bi la jógee Fass Touré fi ma jàngi fa ma jógee. xam-xam boobu laa jël def ko fi. kon xam nga ne. bi dafa complète te moom dafa wax ne fi mu jànge ak fi mu bokk mayu ko muy toog ci télé di xalaat wax lu du dëgg wala lu neex nit pour kii ba na ba du taxaw naan la lii laa lay fajeeg yu mel noonu boo ñëwee li nga bëgg ak loo yor rek am na lu tolloog foofu noonu nga gis ko nga ñàkk ko gis di nga am lu kawe njort bu soobee yàlla. man diw bopp laa bëgg nag diw bopp. diw bopp na mhm. ñu ngi koy bàyyi ñu dara. ah Zeynab Heya. Mhm. dañu ko ah. waaye diw bopp la. waaw ah. pour ñëpp la. waaw. ñëpp la. Mm. góor dina ko def jigéen dina ko def. Mm. da ngay xëy rek. da nga ji sa bopp dina bëri. Mm. dina bëri. am na man mën na mën nga dindi leel wala. leel. waaw lu moom Fatima moom la wax loolu. waaw man na ko dindi mën na ko dindi. parce que en fait quelques mois passés. Ah. amoon nañ client boo xam ne amul woon karaw sox si diggu bopp bi. karaw bi dafa dañoon carrément mais léegi macha allah. est-ce que mën nga déjà man personnellement moom laay utiliser. moom nga utiliser leelu Sadio Mané bi bu mu jëloon deux mois man na deñ mën na dégg moom kay waxumala wax Sadio Mané su su xamoon ñun. waaw suñu xamoon. Hmm. moom li muy naan. waaw li tax mu am calcium bi yaram bi war a dëgër. waaw ak neer yi. Hmm. pour dëgër. Hmm. am naa fi garab bu nekk buy taxaw si loolu. bu amee métti ci yaram. boo xam ne na ko jox courage pour mun a. pour dootul faale sala quoi. ma ne la. lépp am na si. Sadio Mané bu fi ñëwoon te. waxuma ku dul Sadio Mané sax. ma ñëpp laay woo. bàyyi ma kenn. si bopp xolal. njëkk. Donald Trump bi nekk Amérique. Hmm. bi si suuf ku ñëw fi mën naa la jaay gàllankoor. président Macky Sall bëggoon jeex mën nga ci dara. waaw waaw. ah bon waaw. si sa xabul sa laaj laaj laaj ko. laaj rek baro na laaj baro. mais baro sa président bi sa xarit bi jeexagul. waaw ah, ah, ah, moom xam baro mi ngi toll nii de. man. di baro di entraînement bés bu nekk ah. ah. ma wax leen ko. Mm-hmm. day daw si soxog baroog léegi gis nga ñoom ñaar ay xarit la. day entraînement. Mm-hmm. ma ne ko nag garab yi jël ko ndax gars dañu wax toujours ne yow sa waa ji ba ma wax naa ko carrément. mu mm-hmm. ne ma déedéet ma tolloon ak léegi ma toll bokkuñu ñoom ñoo xamul mu ngi mu ngi nu mu daw sama ñu ma daw en tant que président. waaw barke kon si soxog bu salaat nee na dara ci baro mu jeex tuuti man na dara ci président Macky Sall mu jeex tuuti man na dara ci Sadio Mané mu gën a man na dara ci leelu Sadio Mané bi kon euh, kon daal fi njëriñ a fi nekk waaw man eh, man kay euh. man amoo frontière damay tukki damay dem Europe hmm. dama def si àdduna bi ndax hmm. li may yor man dama ko wóolu hmm, mais yow ban nga am bay nekk ay président de la république bu Allemagne ay euh, Dubaï ay ku ne nga xam na que xam nga li fu ne xam nga li may yor doomu adama yi pàcc bu xam ndax comprendre nga fi bu baax ndax man kii may roy hmm. mun ci bi sallallahu alayhi wasallam moom laay roy du noonu te faju bu dagan nga yor faju bu dagan laay yore hmm. moom mu ne garab bi amul feebar bu mu defal lu feebaru dee hmm. kon man président soxla na ma ministre soxla na ma buur soxla na ma ñëpp ma soxla loolu bu mu yëm kenn te et puis pour wax leen ne moom kilifa ku am sutura la ngan di maamu kilifa yu mag ci diine ci diine yëpp nag dañu jëflanteeg moom ci sutura mais du téye audio du téye kii du kii jëflante bu sell te parce que dañuy wax ne fajoo ñaan sutura la te lu baax la man nag benn côté laa bañ parfois nit ki bu fajoo fenn tanewul ñu yàq deru sëriñ ba bu dee nag tane ñu ne waru ko wax kon faj kat nan jàpp ne ki dàq naxaati ci àddina bi sax bu sañoon ku mu ñaanal wala ku mu faj nga wér kon nañu jiital rafet njort suñu bopp bu baax a baax daal. waaw xam nga euh, li ma wax toujours rek. Hmm. ñun ñu am sabab lañu am fii. Hmm. sabab sabab yi dagan lañ. Hmm. tey faj na si ay ñu w amuñu lu warum a naxee nit ñi na su fi xaalis la xaalis moom ku nekk sa wërsëg rek ngay am mm-hmm. yàlla mu ngi sutural amuñu lu bëri waaye li ñu am mm-hmm. a dem ñu ngi a a mm-hmm. lu ma tax ñun suñu pharmacie baa ngi nii loo am boo ñëwee nga am lu toll nga dem sa yoon duñ la mos a wax ne soo amul nangam doo faju ñun amuñu loolu loolu moom la leer ñëpp képp ku fi ñëw nag na nga ñëw ak benn yéene yàlla mooy faj si soxo du la faj de mm. si soxo sabab rek laa moom la koy jox mm. yàlla nag moo yor faj ndax si soxo jaam la mm-hmm. garab bi jaam la mm-hmm. feebar bi jaam la mm. yow jaam nga ñun ñëpp mënoon suñu bopp dara lu yàlla dogal macha allah yàlla daal moo yor lépp macha allah feebar nag ak mm-hmm. feebar dee nag dafa ute kon di leen wax nag ngeen bàyyi xel Tektal boutique nag bagage si soxo yu baax yi yëpp daf fay am. yëpp daf fay am waaw si am mi ngi ci Derklé wetu station xaar yàlla. numéro bi 70 708 51 ñaari yoon bagage si sox xabar soxla. ku fa ñëw oh. moom la. yàgg na fay ñëw nag. yàgg na products. waa jeex na li ma wax la. <laughs> mu ne da ngaa yore ay produits am foofu. waaw ba mi ngi foofu. waaw dégg nga foog ma anglais de. pour mu si sox li nekk fii li wolof naa li duuf ci nag li xajul ci cin li te kër si sox xambat sooda bagage yi fi nekk ku ko bëgg a lijjanti tem nga lëj ku ko bëgg a wane tem yow sa dootoo feeñ kon ñu dem xooliwaat laneen wanaat leen ko ci biir si sox xambat sooda spécial ci biir Tektal TV ñu dem kon si soxo ñëwaat man faneen fii mooy fan ci fi fi ngeen gis nii mooy place ventouse. ventouse ak massage. ak massage. waaw ndax ma li tax ma engage pour def lii yëpp. Mhm. ndax xam-xam bi. Mhm. moo fi ma ko jàngee. Mhm. dañuy wax ni spécialement il faut que ay melokaan yoo xamante ne bi foog ñu yor ko. man defar place bi. place dafa war a jeeg dafa war am sutural. bu ma jàngee pare bu ma ñëwee. xaw na jafe ak man tuuti xaw na jafe tuuti waaye fexe naa bi ma am ko exact li ni ko amee am ko sama réew mi fii mm. moom moo mm. laa njëkki am diplôme bu dem si wàllu ventouse li ma la doon wane noonu mm. ngeen dot bu bon bi si yaram bi ma ne ki loo def war nga si am xam-xam manoo teg si jamono ni mu laajte da nga koy def waaw man yëpp dafay mat sëkk gaam bi clof bi maski ni si yaram bi ba pare deret bu génn deret bu dee mooy génn nekk deret bu baax mooy génn diplôme boobu nag moo nekk ni hygiène bi ak lépp dafa war a. Mm-hmm. ah macha allah moom moo nekk 2012 Emirates la. Emirates Dubai. ah macha allah dégg naa da am na ñu lay toppandoo de loolu moom mooy kii. boo baax la kay fa ñu toppandoo la boo baaxee ñu lay toppandoo. boo baax la kenn la toppandoo. damaa bëgg nga baax nag ñu di la roy. mais toppandoo moom ku gëmul bopp ma koy def. waaw léegi nag ñaareel ba tamit mais daal original baa ngi nii si soxo. Mm. loolu ñaareel ba tamit pour ñu wax leen ko rek. Mm-hmm. alhamdulilah rabbi alamin lu ñu am pour wane nit ñi mooy li ñu yore. Mm. loo xamante ne ñun am nañ ko. Mm. lan mooy suñu mandarga. bàyyi nga suñu mandarga. Hmm. nii suñu xamee loolu rek kenn la nax. sa mandarga mooy logo bi. logo bi. Hmm. mooy logo bi mooy wan SHS yi Soxaba Sawda loolu fu mu waay waaye gisee rek. Hmm. bu mu am ñaari xel. sama bagage yëpp am nañ ko. macha allah alhamdulilah sant yàlla rek. sant waaw kii toog mooy ko. kii mooy Mati Ndiaye. Mati Ndiaye. waaw day day jigéen ñi. <laughs> Ah. day massage jigéen ñi. am na place am am na cabine am. na léppam. Ah. waaye yaa ngi si jàmm. waaw maa liggéey ba méttiwul. non méttiwul nag. Hmm. métti tamit ñoo koy gérer. ñoo ngi koy gérer. Hmm. ah liggéey bi yéen coono ngeen ci gën a jànkonte. non pas tellement amuñu ci coono bi métti métti parce que déjà maîtriser nañu malade bi bu ñëwee dinañ ko maîtriser yi ci des dañ koy gérer am nañu amour bi moo tax méttiwul ci ñun. Hmm. nan dundee ñenn ñi nga xam ne que seen tànk yi du mën dara ay mag la ñu doon manaam pour ñu yëg ci kaw lal bi sax problème lay doon te yow amoo doole noonu nu muy Euh, dañ leen di guider rek. Hmm. Euh, dañ leen di fexe guider euh, jàppale leen ba ñu yéeg bu ñu àndee keneen tamit kooku jàpp ci ñun dinañ def suñuy moyen ba yéegal ko parce que dañuy xool ni ci suñu maam la wala suñu yaay la moo tax dañuy def lu pour dimbali ko ba yéeg. Hmm. bi nit ki ñaata rendez-vous la ko war a mën a def pour li nekk ci moom quatre fois la ko war ah si soo xamul sax Mati wan ko sa biir néeg bi. waaw ak fii néeg la pour massage. néeg la pour massage. massage. Mhm. ventouse. yi néeg la. benn néeg la. néeg massage ventouse. ventouse mun génn dem si deuxième bi. dem si deuxième bi. deuxième baa ngi ni place Matin Ndiaye. Mhm. Mati place Matin Ndiaye. Mati fii ngay defee kii. waaw fii la ñuy defee banque su jigéen ñi banque su massage. Mmh. Mati am na sa kii. sa bagage sa bagage di ngeen peese rek. déjà bu ñëwee bu kii client bi ñëwee. Mmh. dañuy xool ba xam. tension fan nga toll. bi ci boobu ok parce que tension bi am na foo xamante ni bu wàcc de mmh. du mën a def consi du mën a def ventouse bi. du ko mën a def il ñu fexe mais am nañ tamit garab boo xamante ni comme fenugrec bi wala dara man nañ def euh, kii infusion jox ko ko. tension bi yéeg léegi ñu def vent pousse bi. looloo mm-hmm. tax léegi tamit dañuy xool tamit ba xam température am fan la toll. Mm-hmm. parce que am na température yi yoo xam ne surtout temps yi ñu toll nga xam ne corona bi affaire yooyu. Mm. dañuy xool température bi ba xam élevé na wala déet. Mm. en même temps tamit dañuy utiliser masque. dañuy utiliser gant. bu mm. ñu def contact direct. ak ak nit ki. léegi su ñëwee. lal bi tamit dañ koy désinfecté dañuy def alcool bi la utiliser. ñu mm-hmm. def ko. am na sa kii bi am na sa bi nga daal. après. lii daal mooy organisation bu léegi bu defee alcool bi. dañuy jël dañu nettoyer lan la. am na keesam fii fu muy def. léegi fii mooy lan ñu def fii léegi dañuy bañ. comme par exemple comme que ñëppay tëdd ci lal bi kenn ku nekk dañ lay defal sa mouchoir. sa bopp bopp léegi bu Mm-hmm. kenn du bokk ak kenn. du bokk ak kenn. ana kaas xijaama ñu ngi fi. Ah. dañ koy di parce bopp bi fii la war a nekk. waaw fii lay nekk mais dañ koy dagg. buñ daggee nii mu am turu nga xamante ni dina mën a teg bopp bi mu nooyi. waaw mu nooyu tuuti léegi buñ paree nii léegi fekk jëlal nañ ko tension jëlal nañ ko température bi malade bi day summeeku mu tëdd léegi su tëddee da ngay utiliser huile d'olive bi boo utiliser huile d'olive bi déjà da ngay jël kaas parce que day am malaat yoo xamante ne dañuy sonn du trop léegi soo jëlee kaas bi ci ngay kii léegi soo jëlee gaz bi nga pompe hmm. nga def massage hmm. malaat bi ba pare hmm. ba mu nga xamante ni kii bi yaram bi yëngutu na nga door a teg kaas yi nga ñaas léegi soo ñaasee nga bàyyi tuuti ba nga xam ne deret bu bon bi yëpp retiré wu na ak feebar bi nekk ci biir nga door ko dindi léegi soo ko dindee tamit en même temps malade bi day toogaat mu jël repos tuuti nga xoolaat tension fu mu toll da ngay gis ni malaat bi bu fekkante noonu tension dafa wàccoon day yéegaat day normal bu fekkente ne tension bi dafa yéeg de trop mhm. tamit am na foo xam ne ay point la mhm. point yoo xam ne boo ko vent malade bi day tension bi day normalaat léegi en même temps dañuy jëlaat tamit ñu nettoyé waat suñu laal ba mu set mhm. nettoyé waat matériel yi ba mu set ñu door a pare à bi dina durer une heure de temps trente minutes quarante wala mën na diire trente minutes à peu près quarante minutes ça dépend ci malade bi parce que parfois malade bi day sonn de trop. Mm-hmm. doo ko mën a def ventouse noonu rek kii ko il faut nga defal ko massage. jëm mm-hmm. ko kii. Mm-hmm. lii mooy machine bi bi. ok gis nga bi tamit kees bi da ngay ni. kenn ku nekk ak sa pompe individuelle. ah ok soo ñëwee ñu utiliser kaas yi. léegi boo paree dañ lay joxaat kaas yi boo demee kër gi nga nettoyé ko yow yaa koy nettoyé sa bopp. yaay ñëwaat indiwaat ko tamit doo ko bokkat. ak nga xam yow kese la daal yow kese la. kon daal fii waaw macha allah am nañ organisation. kontaan ci bu baax a baax. am nañ organisation. si sox abul sox daal ñu duggaat faneen ah. ñu dem si góor ñi. si góor ñi ah. waaw moo nekk fii. waaw si fii. Habib maanaam ventouse bi. Habib nu mu sant. ba hmm. waa Ceneba la. Hmm, waa waaw. man ñëpp laa jël man waaw Ceneba fas nitu alxuraan ñëpp ñëpp ñu ngi fi. Hmm. man aw ma kon fii waay ñaari yu njëkk yi mooy yu góor ñi. ñaari ah. beneen bi góor la beneen bi jigéen la beneen bi pour defar jigéen seen kanam la. waaw ah. ah, koy pour nice daal. waaw dem foofu. Mhm. Habib moo nekk fii. Habib génne sa bagage yi nga wan leen. xool leen alcool lépp la am fi. Mhm. waaw ñu ngi ci jàmm alhamdulilah. xam nga saalu hijaama pour góor ñi. ventouse ñu ventouse dañ koy wax ci français. bu ko njëkkee ñëw euh, te li ñu njëkk a def dañu lay demandé luy métti si yow. luy métti mm. waaw après ñu nga toog boo toogee. après ñu xool sa station. Mm. fekk jëloon nañ ko si consultation ba pare. Mm. ñu koy xoolaat waaw pour gën a euh, leer lu waat waaw. te machine yu bees sàq la du paan mukk. non du paan moom bët <laughs> yi baax lay am. waaw bu ñu ko jëlee ba pare. après nga summeeku. Hmm. nga summeeku encore dañuy jëlaale fii tamit température bi. Hmm. ak tàngooru yaram fan la toll ak yooyu. Hmm. parce que day amaale solo ci jaama bi. parce que pour dem nu muy demee day am kilote wala. waaw nga am kilote ñoom ñoom bu ñu ñëw des fois nañ am kilote ñu indiwul kilote ñun préparé nañ leen ay kii yoo xam ne serviette yoo xam ne moom lañ di jox. waaw bu ñu paree am na fi ñu wekk seen yére yi tamit. waaw ñu ne. pour ñu bari kersa ñu daal. Ah. Sissoko Habbatu Sauda numéro yi am na whatsapp si soxo mooy original bi. da nga def 78 126 62 29 78 126 62 29 78 455 40 37 78 455 40 37 Isaaxa Sissoko Sissoko Habbatu Sauda SHS international nga xam foo ko waaye làmb ci àddina bi jot ko bii mooy ay numéro whatsapp fonk leen ko bu baax comme ni ngeen di fonke seen taatu seen taatu gaal fonk leen ko bu baax comme neen di fonke euh, seen taatu gaal taatu gaal mooy yére yi nga gën a fonk fa nga koy denc numéro bi nag bu la rëccee rek ruux nga siiru kon bindalal maire bi bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci salle bi mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir numéro si soxo xaboot sawdaat la adduna bi soxla 78 126 62 29 78 126 62 29 78 455 40 37 78 455 40 37 numéro yi am na whatsapp yow mi nekk fii nga ñëw ñu ngi ci Nord Foire jàkkaarloog bi kër gu rafet nga xam ne xale bu am 7 ans sax bu ko rombee benn yoon xam ne fii romboon na ko kon fii njëriñal nee na fi nekk si soxo xabar soodaat international wolof ak jaagoog séeréer ak saraxuleeg ñëpp ku fi ñëw di nga am lu kawe njort waaw kon nga ne nga continuer waaw salaamaaleykum waaw ñu ngi tolloon ci jël nañ station bi ak yooyu ba pare hmm. moom mosuñu yére yi hmm. bu pare après mu toog injection bi bu ñu paree après lalal ko kii bi ku nekk la lalal sa bos boo jógee ñu nettoyé ko léegi après bu tëddee dañuy dindi fii parce que bu dëppoo hmm. faaw da dindi fii pour mu mën a nooy xool la hmm. ñu bàyyi fi espace hmm. fi lay dugal bopp bi pour mu mun a nooy normal léegi bu tëddee nag après nga jël sa alcool nga nettoyé fi nga am partie moom nga war a ko defaral ventouse bi fii metteeg yooyu bu nekkee problème tension la am wala ndigg yi mett neex hmm. sciatique hmm. nga defaral ko hmm. boo paree nga jël kii nii huile d'olive huile d'olive nga defaral ko waaw ak karité bi nga defaral ko waaw maanaam nga jël say matériel moom la ñuy defee ventouse bi waaw boo ko defalee massage loxo ba pare ba pare bi koy dawalal kaas bi mais li mu bëgg xam te à chaque fois da ngay wax ni bu ñëwee yéen ñëpp tension bi ñu xool ko tension bi du ñu ngay xool ñëpp ñooy normal ku normal nag ban plan bee beneen yoon nga ñëw comme suba wala mun nañ la jox rendez comme suba nga xool bu nekkee normal na nga ñëw. am problème ni tension dañ lay remettre ba beneen yoon nga ñëwaat. nga ñëwaat beneen yoon waaw. lii ku koy def nag nga xiif wala nga regg bu ci gën. Ah, am nañ ci beneen idée boo xam tam pour côté bu tension bu wàccee am nañ finigré la ñuy jël. kon daal euh, fii moom njëriñal nee na fi nekk daal. waaw njëriñal moom ku fi ñëw moom indi fi métti moom booy pare ventouse bi nga sentir sa yaram ni oyof na daal. bu baax a baax. kon ñoom kon xewal dikk loraange nag ah. euh, mooy tour original bi jànge Fass ñu koy wax Sissoko Habbatu Sauda nga xam na que gis ngeen émission bu spéciale lan yor ñu ngi dugg ci lu ne di leen ko wan njariñal neen ñu ànd ak uh, Sissoko Habbatu Sauda eh, kon daal si soxo daal uh, këram nii la mel uh, dafa laaj organisation bu mat sëkk ñu ngi duggaat faneen ah. fii daa mel ne Fatima Doucouré lan fekk de. comme daal moom dafa mel ne am messi la daal moom côté yu bari la mane. côté yu mane ah côté yu mane macha Fatima daal waaw mën na ci bii boor mën na ci bee boor waaw maanaam mën na ci bii mën ci bee boor kii moom titulaire lay doon ah Fatima moom titulaire lay doon bon c'est pas juste mais ñun ñëpp en fait parce que soo fi ñëwee euh, soo fi commencé et tout da nga lay defar formation donc euh, si formation bi da ngay def lépp c'est-à-dire euh, da ngay jàng produit bi comme ça nga mën jaay si pharmacie bi mën expliquer si pharmacie bi hmm. da ngay jàng consultation comme ça ku fi ñëw même su fekkente ki di consulter normalement nekku fi mais yaa ngi fi mën nga ko jàppale en même temps aussi côté ventouse bi côté mm. euh, soin des visages soin de corps et tout donc voilà fii daal pour rafet moo ko tax a jóg moom pour rafet ay wér ak yooyu yëpp ci rafet bokk na jigéen bu rafet Euh, bon pour le moment jigéen kese la voilà donc euh, c'est pas juste pour euh, rafetaay non mais aussi pour sa wérgu yaram parce que voilà euh, côté massage bi par exemple mm. euh, day jouer rôle bu mag mm. si koo xam ne dafa ànd ak ndigg buy yi wala mm. yaram buy metti quel que ce soit mm-hmm. en même temps aussi gommage du corps bi par exemple baax na si parce que voilà da ngay dem ba nga am ay picc mu créer mm-hmm. la acné tout ça donc ça joue rôle donc mm. de coup faaw mm-hmm. nga <laughs> um, is Season Habitu Soda's uh, here we take care of your facials, your body massages, um, body gommages, etc. So it's basically for your well-being as well. And we have other products, but as well um, our local products, which is Season from the soaps to the body lotions, everything is available. kooku mooy Fatoumata Doucouré hmm? <laughs> kon daal fii daal ku fi dugg day am avant après bu la neexee oui oui avant après bu leer nañ sax parce que voilà balaa ñuy commencer da nga lay jël photo après d'avoir fait euh, la soin de visage c'est la da gis éclat bu mag c'est-à-dire que voilà il y a un changement ñu xam ne Angleterre ak pomme terre am na différence <laughs> terre rek leen boole <laughs> <laughs> kon daal si soxla daal si euh, kër si soxo kon jàmm fi nekk. alhamdulilah rabbi alamin hmm. mais est ce nga nu limal fi nga am ci àddina bi. ak fenn fu ne foofa nekk. est ce que c'est possible. Euh, mun naa commencé. voilà si Mali comme mun naa commencé si Gambie. Gambie yaa nga fa. Serekunda Banjul Brikama Basse. Hmm. Linding maa ngi si yooyu. Hmm. boo demee fi nga xam ne Sénégal fii. ngi fii yëngu leen. yëngu leen ci wetu yëngu leen. ci yëngu ñu ngi fale tamit. Medina rue 1 angle 12. angle 12 ñu ngi Bakel. ñu ngi Bakel. Bakel fan ci Bakel. Bakel Kura. Kura. Bakel Kura ñu ngi foofu station bi. foire internationale Dakar it da nga fay nekk. fu am bu amee nekk heure bu amee ñu ngi Mauritanie. Mauritanie. ñu ngi Mali. Mali. ñu ngi Gabon. Gabon Spain. ñu ngi Angleterre. ñu ngi France. ñu ngi Amérique. ñu ngi Germany. ñu ngi Canada tamit. ñu ngi Angola ñu <laughs> ngi Angola ñu ngi des na loolu moo tax. South Africa c'est ñu ngi Afrique du Sud. parce que en fait da ngay. xam nga nit kii bëriwaay bi amul solo barke bi mu am solo. ñun nekk nañ fu bëri. Hmm. waaye fu ñu nekk noonu sax ñun sax am na ñoo xam ne bee Norvège àgg nañ foofu te xamuñu ko sax. Hmm. ñu nekk di jaay suñu produit France bëri na te ñun. bu la limalee cinq personnes mën na mën nañ lim lu ëpp loolu. loo xamante ne bi ñun xamuñu leen sax. Hmm. en daal. ma si soxo ba so daal mu ngi noonu mm. du mbir kenn mm. mbir ñëpp la comme ni nga ko xamee mm. yàgg nañ ah. incha allah jërëjëf kon euh, si soxo xabor soda di leen wax daal comme Tektal moom généralisé na fépp ci àddina bi boo xoolee Tektal TV di nga gis Tektal boutique man Tektal boutique moom foofu mooy concours ba ku yor lu baax indi fa mais si soxo li tax ma topp ko ay at pour bëgg a ñëw njëriñ laa ci gis parce que man nee naa leen li may liggéey li ma ci ëppal solo mooy yaakaar yi ni am ci man yaakaar yi bu mu tas mukk kon bagage si saxo xabar sodaat ma nga derkle wet station xaar yàlla numéro ba di 77 108 51 51 foofu nag ku fa ñëw numéro bu orientation bu man ñu orienté la pour nga xam bagage si soxo bu baax a baax ndax lan la si soxo du sedd si soxo du sedd. du set si soxo mën naa ko leeral si kaw table bi. waaw di ko leeral waaw jeex na kon ñu dem ñëw ñu dugg fa jërë ngeen jëf si soxo xabar soo daal kon fii. njëriñ rek lañ fi gis. waaw ak ngëneel. waaw dëgg yàlla fii moom. Mm-hmm. alhamdulilah sant yàlla rek. Mm-hmm. ndax boo ñëwee nu nga xoolee place yi. Mm-hmm. ku nekk sutura moo tax ñu jóg. ndax faj mi dafa nag sutura. dafa laaj sutura dafa laaj sutura dafa laaj. organisation dafa laaj dimbali nit ñi. ñoo bëgg andi différence. indi différence ci biir faj ah. si sa xabar soo daanal kon fii macha allah kon dañuy wax ne faju moyen la mais tamit faj tamit dafa laaj moyen de. man ko jëkk ko xam ko fi mooy place bi fii mooy place bi toog fii xaar mhm. place yaa ngi fi waaw beneen place mu ngi kële mooy premier secrétaire kële deuxième wala tamit yële ah ñaar ñi jàkkaarloo ñaar ñi jàkkaarloo hmm. waa yëpp am si soxo xabaru moom daa mel na fii yàkkangam yi la quoi dëgg la ñi kii ma kan ñi fii bii ban la fan la moom bii année 2017. la woon. Dubaï la woon. sama partenaire yi may liggéeyandool. Mhm. ndax xam nga ne liggéey bi moom ku ko yor moom. Mhm. nga ne da ngay andi différent. Mhm. foog nga dem si réew yoo xamante ne ñoo leen jiitu si mbir yi. ku wax Pakistan tey. waaw xam nga si produit bu baax. produit bio produit naturel. ñi nag man ak ñoom ñoo bokk liggéey bi. yéen a bokk liggéey bi. ok bii ci digg bi kii kan la. kii fii Turquie la. Turquie la kii tamit day defar ay garab. ay defar garab ay garab fii Delhi la. Delhi Delhi Inde la. foofu hmm. tamit demoon naa fa am na bagage ma jot a génn foofu. Hmm. ñu waxtaan si affaire faj bi la. Ah, kële. kële Imarat la. 2015 hmm. diplôme bi ma jox. diplôme la jox pour affaire faj bi. macha allah boobu ministre santé sax moo ko tampoon. comme moo nekk noonu. kële Dubaï. Turquie 2019 Turquie 2019 2019 la. kii sama partenaire defar kaay garab la. defar kaay garab dem defaree garab. bële. fi Inde la. Inde. garab yi nga xamante ne mooy dàq jinne ak cet ak lamine. ñi laa si liggéeyal. bii nga si bii nii. ban bi. kii fii Dubaï la. Dubaï la bii 2014 la woon. ci ñoom ay ponkal lañ foofu Dubaï bi. waaw waaw. Mhm. ci ñëpp xam ne Himani. ñi décoré nañ ma lu mat ñaari yoon. macha allah. kële ci kaw bële. fii waa Inde la moom tamit. Mhm. machine bi la ma doon jaay. Mhm. pour wan ma ne sa garab yi boo ko defaree. ni nga ko replacé. ak la nga si war a def. léegi ñu toogoon di wax te discuter. mu ne comme man dafa mel ni. am na expérience si affaire yi. waxtaan boobu lañ nekkoon. mu ne nañ photo pour am souvenir. si soxabal sada kon ñu xoolaat leneen wanaat leen leneen. waaw baax na muy njëriñal kese. cinq personnes lañ yëpp xaj ñoo si foto bi sax. quarante cinq personnes. waaw te yow rek yaa ci ñuul. waaw man ma commencé ñuul waaw. waaw pour wan la kon nit ku mën naa la wax ku nekk ban réew la jóge fii. Uh-huh. ñëpp mën naa wax ku nekk réew la mu jógee. kenn nekk fu mu jógee waxal. kii. waaw Bahrain la jógee. ñaar ñu Maroc Maroc la ñu. Mhm. kii Kuwait la jógee. Mhm. kii Misra la jógee Égypte la jógee. Mhm. kii France la jógee kii Amérique la jógee. kii ambassadeur Canada la. teew li ci gannaaw ci rang bi ci kanam nga nekk sax yow pour wane ku for nga. <laughs> Jordan. Kuwait Bahrain ak fële Kële. Pakistan la jógee. maanaam Inde kii Inde la jógee. ñëpp dañuy liggéey si wàll garab yi liggéey. kon daal yéen diaspora bi di wax tey kin indi ah si Soxabat Sawda du ku du kuy daw lu rëy la ci mbir ci mbir mi te njariñal leen la li naan ku yokkul dangaa wàññi mais kenn gën indil tey tegtal defe naa ku nu wowul ñaanal ñu sant ñu gërëm ñu doon woo critiqué ñu lii leen bëgg ci kuy góorgóorlu euh, di jëriñ sa réew ci côté bu ne si soo xabat sawdaat nag faj bu set la yor bu dagat bu sell ba pare teg ko ci yoon doo dégg mukk ku lay kalaamee moom ndax lan la faja mën nga ko bañ a sax gis fu mu mën di doon organisé wu na ba àddina bi fu mu mën di doon foo ci demee rek dinga am lu kawe njortu te bagaasam euh, teg na ko ci yoon macha allah li waral ñu ciy sonn pour liggéey moom parce que biñ dalee waaj émission bi war na man ñeenti at ñu topp ci di topp tey suba tey suba ginnaaw suba nangam demoon naa bari pare leen koy defee mu jafe mais li naan lu jot yomb lii mooy war na suñu liggéey dañ ciy dox ba jeex pour indi leen njëriñ rek ak yaakaar bu bañ a tas yàlla ngeen di gën am lu kawe njort ci li ngeen di seetaan Tektal TV ak euh, tegtal émission Tektal njëriñ ak neen rek lan soxla ci so xabar soda mu ngi nii di war na njariñ daal lii mooy koo yor njëriñ da nga koo war a wane ku yor lu am solo danga koo war a wane euh, ku war a jëriñe ak ku war a jëriñu kenn waru ci nëbbatu daal kon si so xabar soda euh, fii kii mooy tamit euh, sa ñi nga jàngandoo la. waaw ñi ma jàngandoo. mu nekk fii daal. 2013 la. 2013 la. ba 2013 la woon. Mhm. ñi ngeen gis ni fi macha mhm. allah ñi ñu am xam-xam lañ. donc mhm. xam-xam yu mag lañ man maa nekk nii. da ah, ngay nekk nii toujours yaa fi bi yàgg na nag. comme ne leeral lañ lépp lu ñu def. bu ñu paree. dañuy joxoon diplôme. ku nekk sa diplôme nga téye. ndeysaan ki amul diplôme nag. di nga laaj moom mooy kan kii mooy suñu docteur. kii moo ñu jàngal. kii. gëj naa gisante ak moom. juróom ñaar ak gisante wu ñu. ren leen door gisante ren ngeen door gisante. kii. Hmm. président bi. Hmm. buur bi daf ko tabax place sax. daf ko tabaxal ngir liggéeyam. Hmm. ndax nu mu xelam màcc si liggéey. am xam-xam. si hôpital bi ñu tabaxa place boo xam ne faj foofu ñuy yoroon jabar ñu ngi liggéey. kii mooy kooku kii militaire bi. moo jiite moo jiite. dafa jiite si militaire bi macha allah kon daal jëlaat leen numéro si soxna Xaboot Sawda 78. 126 62 29 78 126 62 29 78 455 40 37 78 455 40 37 Sissoko Habbatu Sauda Isaaxa Sissoko SHS boo ci def rek mooy Sissoko Habbatu Sauda original bi la roy du noroog pire njëriñal neen la leen di wan ci biir tegtal ak Sissoko Habbatu Sauda lii ëpp naa bañ a def lii yéex nañ koo def ndax kii Sissoko international la président de la république yu mag yi lay nekkal nit ñu mag ñi lay jëflante say diplôme xanaa fàtte nga ko li nga ci yor ci diplôme mënatoo ko xam nu mu toll. MS diplôme. Hmm? diplôme. juróom-ñaar. juróom-ñaar. waaw juróom-ñaar bi juróom-ñett daal. juróom-ñaar bi juróom-ñett. na la wan nii te diplôme international la. kon ñu dem xooliwaat leneen soxo faneen a ngi nii <laughs> waaw. même chose la rek. même chose la. ni ma la ko nekk Pakistan yi ak. pakistanais yi eh? la. pakistanais yi waaw. si sax xabar Sawda doon koo xam ne que daal njëriñ kese lan xam ci yow daal. dëgg la alhamdulilah. dëgg ci bagage de loolu bëggee woon lépp dina jafe de. di jafe waaye ah. dinañ la wan tuuti. Mm-hmm. dañ la njëkkee wan place bi nga xamante ne bi tey. Mm-hmm. ñii ñoo fi nekk. Mm-hmm. kii mooy. Moustapha. Moustapha lu mu sant moom. Moustapha mu ngi nii. Moustapha studio baa ngi nii. Moustapha na nga def. yi. dafa jàpp ci liggéey bi ah. dafa Moustapha Ba. waaw moom moom moom ba moom bii mooy domaine communication bi. domaine communication bi audiovisuel bi. audiovisuel Sissoko Hamadou Sawda. lu jëm ci Sissoko Hamadou Sawda ci wàllu image am. Hmm. Euh, communication am ak euh, production yi ñu def yëpp fii la quoi. Hmm. léegi am na équipe nag quoi. boo xam ne des fois ñoom la ñuy àndal. Hmm. surtout tournée yi ñuy def. parce que booy xool Sissoko Hamadou Sawda c'est international. Euh, des comme année bi comme décembre ba février. Euh, à partir de décembre la ñuy faral di def tournée africaine yi quoi. comme li ko dalee Gabon Côte d'Ivoire Gambie Mali euh, Mauritanie. Euh, après doogu mujjee Sénégal. booy xool à partir de le quinze bii nii nii nii. war nañoo commencé tournée africaine bi. commencé war a dëkk ci Afrique yëpp. à partir de février janvier février février en général lañ doon dem Dubaï. février lañ doon dem Dubaï janvier avril ba août lañ doon def Paris ak yeneen kii yi mu yeneen dëkk yi ci ci Europe quoi. mais vu que xam naa ak situation Covid bi dina xaw compliqué pour yeneen dëkk yi comme européen ak affaire ak yooyu quoi mais Dubaï beeg kii Afrique yi moom dañ koy def quoi incha allah. waaw dañ koy def daal li image yu rafet yi qualité yi lépp daal lépp ñoo koy def dañoo faral def lépp loo xam ne dañu fay dem muy au Sénégal à l' étranger. Hmm. loolu dañuy obligé di ko wone parce que tamit des fois comme li ñu wax euh, si soo xamul sawda euh, du rek comme li gars yi di wax médecine traditionnelle rek rek rek non non mais dafa nekk médecine boo xam ne. Euh, nekkul lu ay nit euh, jékki-jékki la créé nii wala dégg garab yi day faj wala day faj la nga jël dugal non non mais nit ki dafa euh, lépp loo xam dafa jëm ci wàllu faj. dafa laaj gëstu ak njàng. Euh, d'ailleurs mun naa leen woon après image yoo xam ne bañ demee Dubaï. Mm. fépp foo xam ne defoon na ko parcours am. ci école yi mu jàng université yi mu jàng témoignage yeeg yëpp. Mm. li ma ci gën a yëm nag mooy ba ñu ñëwee ci benn médecin boo xam ne ñoo leen jàngaloon ci Dubaï. Mm. bu ñu doon jàng maanaam concours bi day dem ci wàllu ràññee maanaam kii def dosage ci wàllu garab yi Euh, mais euh, dinañ la jox lu ma tolloog ay cinquante produits yoo xam ne ay sunguf la da nga koy xeeñcu. da mais soo ko xeeñcoo produit bu nekk da naan bii lii la. boo foosee benn rek doo doo passé ci mooy dina am diplôme bu ñu leen woon. Hmm. loolu moo lay may diplôme boobu. loolu moom gën yéem ci ci ci bañ demee suñu tournée Dubaï bi. loolu gën a léegi léegi pour wax Sénégalais yi ne euh, des fois ngay dégg nit ñi nekk ci télé yeeg yooyu di xaw a laal médecine traditionnelle wala di wax médecine traditionnelle yi peut-être mm, ñoo indi yenn problème yi ci ci wàllu santé ñi ñi wala yooyu mais fii boo fi ñëwee di nga xam ne c'est pas ça mm. parce que mun naa la wax ne euh, nañ la woon diplôme yi nga xam ne loolu du ay lu ñu inventé lu toll nii comme koo xam ne dafa jàng Chine jàng na fa lépp loo xam ne luy wàllu plante ak yax euh, Japon jàng na fa tamit loo xam ne dafa jëm ci wàllu yax ak ay plante euh, bu mm. demee Dubaï di wàllu wàllu xijaama jàng na ko fa ak médecine prophétique Chine Inde tamit dem nañ fa jàng ci law tam ci ay produits yoo xam ne à base de plante la yëpp daf ko jàng pare am ci ay diplôme après ñëw fii nag mun ko certifié mun ko liggéey kon loolu nekkul loo xam dañ ko jël rek ay kii nii jàmb kook ay affaire ak yooyu quoi pour wax sénégalais bu ñëwee fii gis loo koy nu mu demee ak zen bi fi nekk xam ne vraiment du loo xam ne ay caaxaan ak organisation non équipe la équipe la équipe la boo xam ne comme nu entreprise di mel la am équipe la am ay relations extérieures intérieures chargé des affaires chargé des nu mu tuddee clientèle yi ay euh, lu mu tuddee communication marketing lépp la lépp parce que koo xam ne c'est international loolu da koy laaj. léegi pour wax sénégalais yi rek euh, sama dañuy wax pour wax sénégalais yi rek euh, ñi xam ne euh, maanaam. dëgg messine traditionnelle nekkul loo xam ne tamit vraiment lu lu lu manque organisé la wala loo xam ne lu lu lu wóorul utiliser sa wérgu yaram quoi. Hmm. bu ñëwee fii ci Sissoko Habbatu Sauda vraiment dinañ gis la différence quoi vraiment dina xam bokkut ak ñeneen allah kooku mooy sëñ Moustapha Ba di dox ci communication bi ak yu rafet yi yu baax a baax wax ne Sissoko Habbatu Sauda kon gis ngeen daal fii lu yanj ngeen di gis lu extraordinaire lu rafet euh, lépp tege ci yoon daal. lépp tege ci organisation bu extraordinaire moo fi am. Mm. loolu moom pour wax ko sénégalais yi. Mm. tamit wax nañ dalal seen xel xam na ne. Mm. fii lépp nekkul ay affaire de làmbaatu sérieusement nekkul loo xam ne lu làmbaatu la lu nit ki jàng la ba pare ñi mu nekkal mu formé leen. parce que euh, diplôme yi dina ko certifié nga xam ne da ngay dem foo xam ne euh, je mën naa leen fàtte woon benn après benn image. Euh, demoon nañu récemment Dubaï. boo xam ne ñëpp ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu bio ci ci international laa wax de waxuma la rek ay Afrique mais international ci wàllu bio dañu leen di testé Dubaï. maanaam booy bu nekkee dangay ngay da ngay indi say produits yoo xam ne dañ koy testé maanaam jël nga def uh, matière première bi mais da ngay yóbbu sa dëkk nga testé ko fa boo ko fa testé nga indi ko Dubaay ñu dugalaa ko ci ay laboratoire xool ko mais ñun bañ demee heureusement après di ngay xool vidéo bi y avait 44 personnes 44 pays représentant ay pays mais ñun la ñoo fa nekkoon Afrique dem jël fa Afrique ñu jox ñu ëwët wooñu yuuxuñu fa boo ñu bisee dalay dalay dikkee maanaam def nañ ko certes que peut-être xëy na Euh, nit ñi bio yëngu italu leen wala lu jëm ci wàllu médecine prophétique italu leen mais bu fekkoon loo xam ne ay concours international la loo xam ne italu na Sénégalais yi moment boobu ñun bu ñu ñëw aéroport da ngay gis dañuy gane si parce que raaya lañ ñu jox raaya ëwët lañ ñu jox foofu woo ñu ci kanamu ay nit ñu ñuul ay ñu weex ñoo xam ne ñëpp y des américains des euh, arabes saoudites ba ay jamaïcains amoon nañ fa ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu bio mais ñu nekk seul africain yoo ñu yëkkatuñu fa jox ñu fa raaya après décoré ñu quoi vraiment pour wax ne Sénégalais vraiment affaire bi fii la quoi. <laughs> affaire bi fii la kon ngëneelal nee na. beneen mooy euh, rek mooy ñi xam nag pour wax leen. nekkul ay affaire de seetal ma ay affaire ak yooyu du loolu quoi fii affaire faj la. faj maanaam bépp feebar boo am à base de xabatu sawda la. xabas xabatu faj bu dagan daal. faj bu dagan la ñuy da faj xabas xabatu sawda ak ay plante naturelles tout est bio. 100 pour cent bio sans produit chimique sans effet secondaire. macha allah kontaan nañ bu baax a baax. ñoo fi nekk nekk Europe. nekk Europe relation bi nekk Europe. ak naka lañ fay liggéeyee. ñi nekk Europe salaamaaleykum soxna si. maaleykum jàmm baax. suñu journaliste yaa ngi soxna si tur bi nan la. Mariam Samassa. Mariam euh, yow ban dox ci mbir yi yéen nag Europe Paris nga ci Europe. donc je m'appelle Mariam Samassa je suis responsable du pôle Europe chargée des relations extérieures. Donc, je m'occupe de de euh, l'exportation, l'importation des produits Sissora Saouda en Europe, de la vente et de la coordination de toutes les personnes qui travaillent là-bas pour nous en Europe. Il euh, faut savoir que pour l'Europe, ça marche très bien les produits Sissora Saouda. La médecine prophétique, on ne connaissait pas ça euh, quelques années en avant et Sissoro, il a amené ça vraiment en Europe. Donc on a vu la différence. Aujourd'hui, on a vraiment, plus de déjà, Et nous, tout ça, pour nous, c'est un rêve, c'est du bonheur. aujourd'hui, les personnes apprécient nos produits, ils en la valeur et franchement, on a eu vraiment des résultats positifs. On était amené à faire des ventes où on a reçu plus de personnes la journée. Cicero, quand il est en France, on travaille du matin de 8h jusqu'à minuit. On a énormément de personnes qui le consultent parce qu'ils ont confiance en lui, ils ont confiance Aujourd'hui, on arrive en Espagne, on est en Italie, on est partout en Europe parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en France, c'est très facile d'envoyer des produits. quand euh, on est en Italie ou dans un autre pays où il n'y a pas nos produits, on peut les envoyer facilement par la poste. Donc, aujourd'hui, on a eu beaucoup, de résultats et tout ça, c'est satisfaisant grâce à Sissora Batsaouda qui a pu apporter la médecine prophétique euh, en Europe. Donc, voilà, on espère tout ce qui est euh, produit euh, néfaste et produit euh, bon pour la santé. Voilà. Non, c'est pas des Français qui achètent nos produits, c'est beaucoup les Africains. Et il faut savoir, nous, on une très grande communauté, la communauté soninké. Donc, elle est très, présente en France. Après, on a quelques personnes, des présents de maghrébins, des arabes qui achètent nos produits parce qu'ils connaissent la médecine prophétique. Donc, la, plus grosse communauté qui nous achète mais euh, c'est pas des Français qui vont nous acheter. Et vraiment, ils ont apprécié nos produits, ils ont évalué nos produits, et c'est ça qui fait un plus pour nous euh, en France. Euh, Djibi yow yaay euh, taskato xibaaru bu Sissoko Habbatu Sauda bi nekk ci France di doxal communication bu baax lan ngay wax ci Sissoko Habbatu Sauda ak qualité bi ñu am ak njëriñ ci askan bi. Déjà, bonjour à tout le monde. <laughs> je parle pas en Je m'en profite de dire bonjour à tout le monde Sarankhule nati assalamu alaikum yani aussi Sokhabat Saouda Noko euh, on est fier d'être avec Sokhabat Saouda parce que c'est quelqu'un qui est euh, quelqu'un qui connaît bien son travail et euh, vraiment avec des professionnalismes euh, nous le conseil qu'on donne à tous ceux qui nous suivent euh, de venir vraiment massivement avec Sokhabat Saouda parce que c'est quelqu'un qui a la qualité qui a des produits vraiment 100% naturels. Mmh. produits sans tout qualité ah. tout numéro un en sonique. en sonique bon euh, oɗo xa sukuñi xaɗa xamare me jibidan faxa journaliste euh, radio africa dambe oɗo sisoxongo dome jarandana ñani machallah numéro un ñani organgon kina sukof mantenga sisoxo ñittunga 100 pourcent naturel ñani qualité ñani e euh, sisoxo ngollenga nimisentey ay tun xa xadi machallah nimisentey Mm-hmm. merci kontaan merci beaucoup alabarka jërëjëf jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum. Khadija war si yoonam. Um, Khadija Doucouré laa tudd. Khadija Doucouré. oui fii laa liggéey entreprise Habbatu Sauda. secrétaire Sissoko uh, ci boppam la si <laughs> Sissoko baax nga xam ci moom ak oyof ak liggéey qualité. waaw waaw uh, suñu produit ni ñu ko waxee tout le temps 100 pour bio. sans euh, effet secondaire en euh, temps damay gérer tamit bagage yoo xamante ne day dugg di génn loolu tamit. kon daal fi organisation bu baax moo fi am. macha allah alhamdulilah. Euh, wax ko ci anglais tuuti. Um, the fact that our like you've seen all of our promotions all of our adverts um, if you don't see the logo it's not our product uh, the fact that uh, are no side effects to the product itself It's something that's good for the health, and it's something that um, it's recommended to be used daily and um, frequently as well. So with Sissoko, you'll get only the best. <laughs> Thank you, Khadija. Thank you very much. Jaajëf. ñiy seetaan Tektal TV kon. Euh, si soxna bureau secrétaire Khadija. bureau secrétaire Khadija ah. Ah, kon euh, si soxna wax ah, nga mooy sama bureau man. fii mooy sa bureau. waaw fii mooy bureau si soxna Xabar Soda. waaw fii mooy bureau bi. bureau bi naa ñëw def fi émission kon. waaw bureau bi bu ñëwaatee fii laa bëgg a def émission parce que sa bureau bi. macha gis ngeen bureau si soxna Xabar Soda am na organisation am na lii am na. bureau bi comme kii euh, am na caméra surveillance. comme régie sa kii bi yëpp ngi ni kër gi. maison baa ngi ni foo dugg yaa ngi gis. fépp fu nekk ba ci mbedd bi da koy gis ah. waaw produit si sa xabatu sawda. produit bees yi bees yi yëpp fii day nekk daal fii ngay toog di xalaat xam mu ñëw quoi. incha allah fii lay toog ñaar ah, place la. ah sa xarit na dale chaque jour yaa moom. Adama Baro Adama Baro yàlla na fi yàgg te wér ak xaritam président Macky Sall yàgg fi loolu te ànd ak wér fii moom yow ak Adama Baro yu bëri la sax. yow ak président Macky Sall yow ak euh, euh, Adama Barrow encore toujours quoi euh, ana président Allemagne bi sa xarit. président Allemagne bi. bu fa tam mu ngi foofu naa ko def incha si soxo léegi dugg nañ fu bari wan nañ lu bari waxtu bi moonu dab kontaan nañ parce que li ngay yor mënul xaj ci émission sax mais damay ñëwaat jëlaat la émission spéciale ñu toog wax parce que macha allah sa bagage dafa riche kenn mënul wane lépp. diaspora bi yëpp kontaan na looy tàggoo ak koy sant ak gërëm. alhamdulilah rabbil alamin santal ku la neex gërëm waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Mm-hmm. sant sama employé. sa employé ñaata lan. Euh, boobu nañ ko bàyyi côté. ñu ok. ndax réew mi ak employé am. Ah. réew ak ñi fay liggéey. Ah, réew ak mu ñu fay waaye suba soo leen suba ñu ngi Amérique. ñu am na am na am nañu nekk Amérique. am nañu nekk mais réew bu ne moom war na ëpp sàmm. Mariam Samassa Mariam Samassa. mën nga ko gis fi tey suba doo ko fi gis nga gis ko reneen réew. Hmm. dañuy tourné dal waaye nga xam ne si France lañ nekk. Hmm. am ñoo xam Gambie lañ nekk am ñoo xam Mauritanie lañ nekk. Hmm. ñun daal amuñu frontière dañoo jaxasoo affaire yi. macha allah ki na fi na fi nekk. kon daal xam-xam daal moo waral nga jaxasoo président de la république yu bare fu ci. Dubaï Allemagne àddina bi tuuti. du leneen xam-xam rek la. jàng bi rek la. xam-xam bi ak li du ma tricher du ma wax kenn lu mu lu ma gëmul lépp lu ma wax dem ko teg si yoon. soo su ma tëddee ma nelaw ndax man ma benn problème. léegi koy sant ak gërëm nag damay ñëwaat parce que kenn ma téye fi ne. si soxla dem naa si moom faju naa foofu war na ma jox ma xaalis ndax na ma. Mm. munum bu fukki at ak ñaar maa si liggéey bi am problème boobu. du ma ko am sax. Mm. xalaatuma ko sax. ndax li nga am moom laay jox nga yóbbu. boo jëlee bu jeexee nga dellusiwaat munul ma jàpp su ma yore ne nangam ak nangam wala nga may dem di ma tuumal wala nga wax naka su noonu man ama problème boobu su ma tëdd damay nelaw sama sama liggéeykat yi ku tëdd day nelaw amuñ hmm. problème boobu ragaluñu macha allah léegi ma euh, ki may sant loo ñaanal Tektal TV hmm. euh, ma sant di gërëm ki njëkk ki mooy sama ñaari waajur yi hmm. euh, a toll fii pare moom laay gërëm di la sant di ma Fass Touré nag ñoom ñi sama jikko bu rafet jàngal ma yar ma teg ma si yoon dama nekk doom yi tey macha allah gannaaw boobu nag nuyu Sénégal nuyu kilifa bi nuyu président Macky Sall. Mhm. di président Adama Barrow. Mhm. di nuyu adduna bi yëpp képp ku may déglu dañ ñuy ndongo daara Fass Touré surtout ñoom. Mhm. man man ak ñoom ñoo yarandoo. ma leen nuyu ñoom ñëpp su ma paree Tektal euh, TV. ma ngi leen di nuyu Cheikh. waaw ngi di yaa ngi may topp. billahi ñeenti at wallaahi mënoo ma la yàlla dogal. nga am ma. ñu toog ñu waxtaan. ma hmm. a télé bi na àgg fu nekk si àdduna bi te mu ngi dem tan télé boo xam ne yàggul hmm. fu nekk àdduna bi ñu koy suivre hmm. mu demee tey internet a ngay suivre bu baax xam nga barke rek la barke bi dañ ko ñaan yàlla mën a yokk yal na xam ne jural askan bi njëriñ kon fii laa mën a yem ak yéen kontaan baax di wax tamit Tektal boutique nga ñaanal ko produit bi ma nga fa Tektal boutique nag day jaay produit si sox pour xam loolu mu leer leen bagage yëpp dafay jar. waaw ndax wóor lañ ko teg. Mhm. si ku wóor lañ ko teg ku wóor lañ ko teg. nga mhm. xam am na si moom yaakaar. Mhm. dem ne nag bagage soxos bi daal man. jeex na sama na Isaaxa jël beneen produit bu sama produit doo doo doo ndax si Sissoko original baa ngi nii taxaw xabat sawda kon gërëm na la bu baax a baax xaaral ma joxee yoon bu mujj numéro Sissoko xabar sawda pour képp koo xam ne que bëgg nga ko parce que damay lay jëlaat li nekk ci émission bi xajul da ngay def 78 126 62 29 78 126 62 29 am na WhatsApp 78 455 40 37 78 455 40 37 Sissoko xabar sawda nekk ci Nord Foire ci fan ci Nord Foire ci wetu pont bi rek Nord Foire yëngu leen. Nord Foire yëngu leen rek boo ñëwee gis kër gi. mi kër gaa ngi nii leer nañ yomb na xam. bu dee nag produit yi foofu am na pharmacie ci biir am na Medina numéro Medina bi jàpp ma ko mais boo wootee ci dina la ko jox Tektal boutique tamit am na mi ngi derkal wetu station xaar yàlla. Mm. am na Mali am na France am na fu doon foo nekk rek boo wootee ci numéro yi dina la orienté ba mu jegale bu baax a baax Tektal ñu gën ko yaatal xewal dikk loraa nga dakk si sox xabat sodaar ki ma abiyee maa ngi koy gërëm bu baax a baax El Hadji Diop la mu ngi nekk ca Allemagne jëkk borom këru Nogoy Diop nga xam ne Zara boutique la ma yóbbu ma tànnal ma tànn ba doyal di jël kooku yi moo fi jaar yow kat ma la abiyee. man bi Dubaay laa ko jëndee. ko jënd yaa abiyee sa bopp kon. waaw barke rasulullah et eh, si soxoobal soodaan nag di leen wax ne. am na ngandi maamu garabu ngóora boo xam ne que pour personnalité yee ko tax a jóg <laughs> loolu nag secret la ci suuf ku ko jël di nga sant di nga gërëm garabu ngóora boobu nekkul sax ci pharmacie bi parce que boobu di nga ñàkk nag di nga mel ne njëgu billet avion ngeen bàyyi ko xel garabu ngóor boo xam boo ko jëlee koo ku la merewoon dootu la mere koo gërëmoon di nga ko yokk ngërëm kon boobu nag ay code la ci biir boobu ñu côté ko pour kilifa yi la. Ah, boobu du ma ko boobu suma saak la nekk boobu du ma ko. ay code la waaw moo tax ba ne ay code la. kilifa yi boobu suma saak la nekk. personnalité yi dina ko am waaw alhamdulilah ndax man. bëgg ma lu cher. waaw wax dëgg yàlla bëgg ma lu cher dama bëgg a yombal lépp loo xam ne man maa ko sama bopp. Mm-hmm. te aw ma sa lu cher dama ko jaay lu yomb. Mm-hmm. ba loo xam ne dafa cher nag ma génn sama alal bu bëri jënd ko loolu mun ma ko jaay noonu lu yomb. jeex na garab boo xamante ne numéro un la amul deuxième. jaaxal na bi ngeen bàyyi ko xel boobu pour personnalité la. su jëlem hors antenne. wax ko naa hmm? def ay mbuusi ndaw mosal si kenn kenn kenn. Hmm. jeex na kon équipe technique bi daa àndaloon yéen ñëpp naa si mosal borom soxna yi naa si mosal ñëpp ñu leen ci mosal ah garab bu saf saf dégg ngeen ko borom soxna waaw léegi euh, naa ko jox ko am soxna nag nga daal bi nga am jeex ñëpp am nañ ko nee na mu ngi kii euh, si soo xabar soda ak tënk bi na àndal moom moom it docteur Wade bu Casamance nekk ci Pape Cheikh Ndiaye bu Derkile nekk ci Bama Samba Diop nekk ci Petit Sow nekk ci Gaw Sow soxna May Diop réalisation Tektal TV équipe la ñëpp Tektal ñu gën ko yaatal xewal dikk loraange dakk ak Isaaxa si soxo SSS si soxo xabar soda moom lañ doon dal ci teg daa jëf waay xewal dikk loraange dakk